وإني ببسم الله نسي أبتدي إليكم عباد الله ترا لدفن قل وإني ببسم الله نسي أبتدي إليكم عباد الله ترا لدفن قل وإني ببسم الله نسي أبتدي إليكم عباد الله ترا لدفن قل وإني ببسم الله نسي أبتدي إليكم عباد الله ترا لدفن قل بما قال مولانا العلي لحبيبه الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وما بكم من نعمة فمن الله mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla na sunu ziyaar yi ak sunu baalu yi yàlla ñu ko yàlla boole nangul ñu ko ci yéen te defal leen ko defal leen mu nekk ay xéewal yu bare bare bari ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo fii ci Cherif Dabakh TV tey nag ñu ñëw seet si ki nga xamante ne bii kenn la ci ñun waaye di kenn ci Sénégal koo xamante ne bii kenn dootu ko présenté koo xamante ne bii li mu liggéeyal diine liggéeyal ko tariqa Cheikh Ahmada Tijani radiallahu anhu fu ñu ko tuddee xel yépp dem ci sunu maam ju tedd jooju di maam Cheikh Ahmada Tijani si al maktoum waaye it nag dem ci fi tariqa bi nga xamante ne bii mooy tariqa Cheikh Ahmada Tijani radiallahu anhu mu liggéey ci liggéey bu am solo liggéey bu am doole ci Sénégal ak ci àdduna bi yépp mbokk yi Chérif Dabakh TV tey doxantu si seet si sunu góor gu tedd googu seet si sunu maam bu baax bi seet si ki nga xamante ne bi tabaarakallaahu bu ñu waxee li ñu bëgg a waxtaane kenn du ne waru koo wax waaye kenn ku nekk di nga yëg ni moom rek a ci war a wax ndax bu ci waxee ñu bare bare bari dinañ ci xame loo xamante ne bi xamuñu ko ci woon seen mbokk Abdoul Aziz nag Thiam toog fii wuuti fi oustaz Sidi Ahmed mbay ci li nga xamante ne bii moom moo ko waroon ne def waaye mu am ngant ñu ngi koy ñaanal yàlla subhaanahu wa taala ngantam loolu yàlla na ko yàlla woyofal ci boppam incha allahu rabbi mbokk yi tey ñi ngi toog ak sunu baay alxaaji Malick Cissé adduna bi yëpp gën koo xam ci Cissé jinge du ñu def lu dul rek bàyyi leen mu nuyoo ak mbokk yi incha allahu rabbi bu paree rek ñu dugg ak moom ci waxtaan wi incha allah salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qaali eh, di nuyu ñépp waaye jiital ci nuyu bi nag Chérif Ibrahim Haydar sëtu Seydi Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiallahu taala anhu moom mu nga xam ne ñun ñépp mooy sunu kilifa waaye nag moom lañu tuddee it kilifa gi nu war a waxtaan ci mbiram. Hmm. Seydi ci Ahmad Tidiane si al Maktoum. Hmm. Ah, Abdoul mii ñëw itam di jël si waxtaan wi sunu lépp la ndax ca Sikaab kër Sidi Mbay ak Sidi ak euh, maamam góor gi Malick Thiam. Hmm. wax dëgg yàlla ñoo taqaloo ba kóllëra doxante fa ba yaayam. soxna Mbayang Thiam am doom bu jigéen jox ko sooda ñàng mi nga xam ni mook sama soxna ñoo bokk jenn ndey ndeysaan ba yee juddoo yëpp juddoo ca alhamdulilah ah may jiital nuyoo bi nag jiital ci shérif mu joxal ma ko ñëpp <laughs> waaye itam nag ma ci teg ginnaaw shérif mi yeble sunu xalifa général Cheikh Seydi Abou Bakar si al Mansour Mouhamadul Mansour mhm. mi nga xam ni mooy sunu xalifa euh, ci jamono bii yal na ko fi yàlla yàggal amiin yaa rabbal alamin réalisé yi mu naal yépp yi mu fi fekkoon ci naal maanaam ay projet te matul mu mot li ko ba yi mu naaral boppam mu mottali ko. amiin yaa rabbal alamin. ah yàlla mën na ko yàlla na ko def. amiin yaa rabbal alamin. Eh, nuy bëgg it nag ci ñëw gi ak laaj bi xam naa li nu xam sax bariwul. Hmm. waaye nag ah, dañuy lu lu luppum ndey lax-lax ci la doom jay toog. wallaahi wallaahi. xanaa loolu rek ñu jéggal na lu ci nara ñëw ci foto ay yu kenn xamul. Hmm. ndax nit moom. matul te maa ci raw. est-ce que. nu bëgg lool nag ak yéen ñii ngeen fi ñëw ak kii kii muy jëlal waxtaan wi. Abdoul Aziz Diop mi Abdoul Aziz Diop. waaw moom itam. Mhm. yal na ko yàlla defal li mu bëgg lépp ci métier am. amiin yaa rabbal aalamiin wax dëgg yàlla ci lii Chérif def. Mhm. man xam naa maa gën a. yembar gën a yeppandi <laughs> waaye xeebul sama melo ba tax mu yeble ci man di laaj ci Seydi Cheikh Ahmed Tidiane si Al <laughs> ak rakkam jaw la doomam la sax <laughs> mhm. ndax moom nee na mooy taawu Serigne Cheikh te ñoo mhm. bokk soxnaa sukan ak Serigne Babacar ndeysaan waaye loolu yépp njureelu deret dafa am njureelu pas-pas am mhm. moom nag njureelu pas-pas la am ci Serigne Cheikh ah muy Seydi Cheikh Alhaaji Malick Samiyu jeddi yi mhm. eh, ñëw di ma laaj ci Serigne mi daal eh, dafa bëgg a daal tàmbali liggéey boo xam ni mhm. mooy toppatoo mag ñi xaajalewu ci nag ci benn tariqa kuy magum jullit rek wala rawatina nag lu demee ne yi tariqa bi mhm. waaye kuy magum jullit ak kuy magum citoyen bu ne ci Sénégal rek bëgg mhm. na daal ñu leeral ci seen mbir dara mhm. général kii kii namutu eh, génération yi ñëw bii ñëw man cee jariñu incha allah mu ne nag bu doon ab téere la fatiha ji mu ngi koy def Pape Malick si ak Serigne Cheikh. macha allah mu téere bi. Mhm. Ah, ñun ñi ñëw nag pour ñu jàng téere boobu yàlla nañu yàlla dimbali. ñu ne rabbal ah, alamin ñu mën cee defar téere boo xam ne ku ko jàng jariñu. amiin ne rabbal alamin ah, diggante Serigne Cheikh ak Serigne Pape Malick. la leen boole bari na mhm. xam naa ndey ak bàyyee ci jëkk mhm. waaye la leen boole ëpp na loolu waaw ndax sëñ Cheikh ci boppam diggam ak sëñ Babacar lool la ci wax mu ne araftu hudal xalifati hmm. Hmm. qabla kawni janiinan hmm. id araahu wa id yaraanii bi nuuril xaybi allahu akbar xataa jaa amrun wa amrullahi fi tayil masaani mu ne sëñ Babacar xamante nanu démb laata noo ñëw fii ci alamul arwaax la nu xamante est-ce que nee moo tax xam naa ko laata maa nekk li ñuy wax fœtus la xaw ma ci biir c'est sama biiru yaay ndax dama ko dandaan gisante démb sunu ñaari ruu di waxtaan ba ñu àdduna war a jot yàlla jaarale ma ci moom ma ñëw waaye démb la xamante allah moo tax sëriñ Cheikh yaram yi ñoo magante waaye ruu yi ñoo bokk ñoo bokk benn jamono buñ juddoo al arwaaxu mm-hmm. junuudun mujannada mm-hmm. fa ma taarafa minha tëlëf mm-hmm. wa ma tanaakara minha ixtalaf allah benn régiment lañ yoo bi ñoo bokk fu ñu juddoo bokk nañu mel nee na lu ci lu ci xamante foofa mhm. bu ñu ñëwee fii xamante tàppoo lu ci réerante foofa bu ñu ñëwee fii réeroo réeroo te duñu dajaloo mu ne man nag maag sëñ Babacar démb lañu xamante di waxtaan miinante ba ba nuy ñëw àdduna nag yàlla jaarale ma ci moom allah moo tax mu ne araftu hudal xalifati foofa laa xamee njubug sëñ bi sëñ Babacar xam la kaw ni jëniinan laata maa nekk lii ci sama biiru ndey hmm. id araahu dama ko daan gis foofu way yaraan yi mu daan ma gis xataa jaa amrun ba mbir dikk te mooy ma war a ñëw àdduna hmm. ma jaare ko ci moom waaye itam ah sëñ Cheikh itam hmm. wax dëgg yàlla loolu moo ko dal ci diggam ak Pape Malick hmm. ñoo bokk sëñ Babacar ak soxna Sukan hmm. radiyallahu anhuma waaye wax dëgg yàlla ñoom ñaar sëñ Babacar Pape dafa gimmi rek mu jox ko sëñ Cheikh est-ce que jàngal di ko yar ko fal tarbiye hmm. ba ñaar yépp mat moom sëñ Cheikh ci boppam mu ne Pape Malick mooy sama taaw ci wàllu hmm. woowu waaye mooy sama rakk itam ci wàllu deret ah bu ko defee yàlla jubale leen hmm. ñu ànd di déeyoo loo xam ni kenn du ko xam ku dul ñoom ñaar dinañu wax ñoom ñaar loo xam ni doom du ko xam soxna du ko xam ndax loolu la leen yàlla boole ndax Pape Malick itam dafa yàllaa ko yaral boppam hmm. daal ñépp seede nañu ni xottiku bu am ci bopp mhm. walla diggante sëriñ si mhm. bu demee posoom bi muy ñawee bu ko bu ca paree rek dina gaar xottiku ba yëpp te poso bi moo di làmmiñam la moom yorul paaka di xotti mhm. poso la di ñaw di gaar di ñaw waaw li ci mujj ci waxtaanam mi mu doon waxtaan ci feebar bi mu ni tiit naa ci ndax dama dama tiit feebar bi tax ñu fàtte yàlla Hmm. wax na dëgg hmm. waaw ndax fàtte yàlla mooy xam nga ni li xew yàllaa ko def hmm. te delluwoo ci moom d'abord tuub li nga foog ni moom nga def ba tax mu di la sanctionné nii nga tuub ko waaye nga faf di xaaw ak di def yu kenn xamul ak tax ay béjjën ak i xor wax dëgg yàlla loolu mu doon tuub jar naa jar naa loolu mu doon tiit jar naa tiit jar na tiit wallaahi ah, nuy sant yàlla bu baax shérif euh, mi xam ne xelam dem na ci loolu mhm. ah, waaye itam nit ku ne la ngay dundee mhm. ñu bindee la ko muy sa jikko loolu rek ca ngay xalaat wallaay ndeysaan itam lii dong la mën a def wallaay ndax moom ci lii la juddu wallaay lii lay xalaat mhm. kon nag lii rek ci la mën a wax waaw sëñ Babacar itam wax ci turu Seydi Cheikh Ahmad Tidiane mi maamu shérif mu ne Cheikh day man bu xamee ne dofam laa rek doy na ma doy na sa yaa xuniyet yi est-ce que yi hmm. yaa muniyet yi hmm. fa anal mu tayyamu in arafta kafaani allahu akbar yaa xuniyet yi yaay sama koom hmm. yaa bux yaa buxiyet yi yaay sama càkkutéef yaa muniyet yi yaay sama mébét na yëg ni fa ana man Babacar Si Hmm. al mu tayyamu maay ka ñu gëlëm loo dof loo dof loo ko ci yow in arafta boo xamee lool rek kafaani doy na ma allahu akbar sama yoon sama yoon nekku ci allahu kon nag hmm. kon ñu yàlla boolee fi nekk hmm. kenn ku ne daanaka dof ci sa moroom ah, ndax daf ci am yoo xam ni boo ko xamee piir dootoo ànd ak sa sago wallaahi ànd ak dafa tolloog nag wolof yi dañuy wax ni bokk ci sëñ Muniiru hmm. radiyallaahu taala am jabaat sëñ Babacar hmm. moo daan wax ni bokk ci coow li xam li xew a ko gën hmm. waaw waaye boo xamee li li xew doo ci bokkante ci coow li wallaay ndeysaan dundee rek kontaan lool nag allah jërëjëf xanaa ñu alhamdulilah macha allah alhamdulillah nii mu ko waxee rek ku ko dégg xam ni eh, xam na bu baax a baax a baax a baax li nga xamante ne bii moom la ñu ko nar a laaj ak li ñu nar a waxtaane ak moom ci njariñ bi mu war a jur ci eh, génération bi nga xamante ne bii ñi ngi ñëw te yàlla dogalul ñu fekkee Eh, jamonoy Serigne Cheikh ak Pape Malick wala yàlla dogalul ñu jot xam bu baax kanay Serigne Cheikh wala kanay Pape Malick seen diggante lan moo ca nekkoon. tey papa bu ñu la doon laaj ci diggante boobu ndax wax nga ko ni eh, Seydil Hadji Malick si bu Pape Malick dafa gimbi rek Serigne kër jël ko séddee ko Serigne Cheikh mu jàngal ko waaye yar ko dem ba mu nekk eh, doomam ci ruux waaye nekkit rakkam ci deret léegi doomam ci ruux boobu li mu ko jàngal ak li mu ko defar maanaam njàng mi ndax ndax yomboon na ci Serigne Cheikh ndax ku yor sa rakk di ko jàngal eh, ci jamono ji ñu ko xamee ni dina am benn noo koy nooy mel ci moom ba li nga bëgg ci moom du am eh, ndax jafe woon na ci Serigne Cheikh pour mu jàngal Pape Malick hmm. euh, hmm. la gaa hmm. waaye nag moom xaqiiqaam ak réalisme am. Mhm. ëpp sentiment am. Mhm. ndax bu xamee ni lii moo lay jariñ même bu mettee. Mhm. ci yow mi koy def. walla mu bo mu metti ci ñaari way jur yi ko jur yi du tee mu def ci lam cay def. moo tax bi mu koy yar ci wàllu njàng ak yooyu. xaw na ko rey. est-ce que. sëñ Babacar nag dafa napp ci Seydi Hadji Malick. Pape Malick moomu ndax. waxuma njuréel gi ci deret waaye njuréelu baatin ga ak mu tudde ko ki mu gën a bëgg ci nit yi di Seydi Hadj Malick mm-hmm. parce que Pape Malick radiallahu anhu moo ma wax ni ma mm. sëñ Cheikh daf ma daan kàcciri ba sama gannaaw bi naaj mu fomp ko ne ma teg ci sa mbubb allah bu ko góor gi yéegee rek naa la rey est waaye moom lu ne dañ na ko mm-hmm. waaye moo ko jàngal defar làmmiñam ba ñi ko dàq maxaari jul xuruuf mhm, mhm. ci doomu soxna bari mhm, man mii bi may ñëw Tiwaawan xayril maxluubi alayhim wala laa lii laa daan wax ak walaar lii est-ce waaye Pam Mari moo ma defaral sama làmmiñ moom laa jëkk a xam ci kër sëñ Babacar est-ce que ba tax na sëriñ Cheikh tarbiye Seydi Haaj Malick moomu di Pam Mari ci wàllu ruux waaye tarbiye ko ci wàllu euh, yaram mm-hmm. ak ak ak ak zahir mm-hmm. ndaxte nit ki boo amee biir ti amul biti du sotti mm-hmm. waaye am biir ba pare am biti loolu moo am solo fexe na nag moom ba boole ko ci ñi am biir am biti ndeysaan ba tax na ci biti nii rek apparence nii rek boo ci gisee Pape Malick da ngay ni nooskat la nitu àdduna la waaye loolee bu la ca biir feeñoon rek dina éclipser li feeñ ci biti bu mhm. dootoo ko ñemee jëflante moom sax ndax réccu tuub la nga jotoo ne moom la ci wàllu àdduna mhm. xam nga ni ku am juróom-ñetti fukki at mhm. te nii mu mel boo ko xoolee dangay ngay defe ne ñaar fukki at la wallaahi wallaahi màggatul ba wallaahi wallaahi wallaahi màggatul ñàkkul bëñ déedéet ni mu demee wallaahi ndeysaan noonu ñi nga xam ne dañoo màggu felax <laughs> ah, ba tax na mhm. yàlla lu am solo mhm. ndax euh, Pape Malick dafa daan bu daan góor gi sëñ Cheikh ci bi mu koy jàngal mhm. da ko daan def li njàngal laaj lépp ak li jàngal laaj mooy sonal la ba pare nag ne ko bu ko soxna si yégee naa la rey bu ko góor gi yégee naa la rey ñax mhm. ñoom it dañoo am sentiment ci yi ay yërmande mhm. ci wàllu njuréen ba bëgguñu nag it ku koy solal yenn sonal yi ndeysaan waaye sëñ Cheikh nag xam na loolu ba pare mu ne waaye loolu itam bu biir ba baaxee te biti bi baaxul it du sotti mhm. moo tax mu yar ko ca biir ba mu doy. Mhm. mu yar ko ci biti. ndeysaan macha allah ah, ba tax na da daan dénk xale yi. Mhm. conférence yu bari. Mhm. mu di ca wax séddale tâche yi. ni man maay seen maam. sëñ Pape Mari mooy seen baay. sëñ Moustapha mooy seen eh, kii. chef de guerre. Mhm. wala responsable moral. Mhm. wala patron. Mhm. sëñ Mansour mii nag di taawu sëñ Cheikh mu ni mooy seen sëriñ. wax na ko ci ñetti conférence man may seen maam. ndeysaan Pape Malick mooy seen mooy seen chef de guerre. sëñ Mansour mooy seen mooy seen sëriñ. allahu akbar séddale tâche yi. waaye kenn ku ci nekk ci ñoom. famille bi. mat nga la nga doon. ndeysaan. côté buñ la féetalee. Mm-hmm. ci wàllu baatin mat nga ko sëkk. Mm-hmm. côté buñ la jox ci wàllu zahir. Mm-hmm. mat nga ko sëkk. kenn ku ci nekk. tudd cër dafa mun la ñàkk rek. ñu ni diw mooy nangam. waaye ku ci ne la diw moomee doon yow mii tudde weneen tur mën nga ko wuutu ca loola mu nekk. ñi ci des ñëpp kenn ku ne mën naa wuutu Serigne Mansour ci cëriñ ji mu doon ci ñoom. ci ñoom dëgg la waaye moom it mën naa wuutu Baye ga. Mhm. Pape Malick mën a wuutu. Mhm. ba ci sëñ. ci sëñ Moustapha waaye sëñ Moustapha it mën na wuutu sëñ Mansour ci cëriñ ji mu nekk. Mhm. mën na wutu Pape Malick ci jur yi mu nekk. mën na wuutu. Euh, Serigne Cheikh ci maam ci maam nga mu nekk macha allah yàlla kër Seydi Hadji gis nga coow li lépp li ko indi hmm. moo di kenn ku ne ci taalibe ka nga nekkal gis nga ci moom jikko joo xam ne defe nga ni kenn melul ni moom hmm. ndax yow li nga gis ci moom te ñee gisuñu ko waaye ka nga ca gën a miin nag defe nga ne kenn du moom hmm. fekk nag gis yi nga gis jikko ji nga gis ci moom boo mel ci moom noonu nga moom moo moo la ca raw wallaahi wallaahi gën a xam wallaahi daf daan wax ni kër gi genn la da ab dëkk la wala kër la mhm. Seydi Haaj Malick mooy boroom kër gi mhm. mu ne waaye kër nag day am ay surga ak njaboot mhm. ñooñu nag ku ne sëb néeg ngay am mu ne kër gi nag néeg yooyu kenn ku ne ñëw ci kër gi di nga ci dugg ci benn néeg foofa ngay féete waaye ku ne néeg ba nga dëkk gis nga ca loo xam ne defa nga ni yow dong yéeg bii néeg dong la lool nag amul ci beneen ba ca des fekk na néeg yi ca des yëpp kenn ku néeg ba nga ne la nga ca gis defa nga ni yow itam loolu amul ci beneen néeg. <laughs> bu ñu woon néeg yi. yëpp a yem yëpp a yem ndeysaan. waaw allahu akbar waaye nag lu ñu yem yem. Mhm. amuy distinction. Mhm. waaw ah, ndax sëñ Cheikh dafay wax ni bu ñëpp bokkoon i cër. Mhm. am ñu gedd seen cër. parce que yonent yi nee na yonent lañu. waaw. waaye tur wi ñëpp ko bokk. Mm-hmm. waaye ku ne xam na ne nag. waaye sallallahu alayhi wa kon nag wallaahi ñàkk koo doon it du tee doon ab yonent wallaahi dëgg la du tee doon yàlla reconnaître sa baax mm-hmm. ba tànn la yebal la ci nit ñi wallaahi uh-huh. ndax yàlla du yebal dof du mm-hmm. yebal ku ñàkk xel ni na demal ci sama nit ñi sama mbooloo mi yee leen mm. wóoloo di ci sam xel ba jox la téere di la wax yu di la wax nooy waxee ak boo demee nooy kii te bawul ak sam xel ak sa xelum nu bu wax waaw waaw mhm. kon nag mhm. kese yi xaaj may noonu la mel mhm. ku des desee ku doon yonent bi doonu cheikh doon seen lépp wallaay ndeysaan xaaj la ko yàlla may moom nag si xaaj may di dàq ci yëf yi am la am am cër te wane woo ko gis nga bu doon wane cëram dina seene ñu bari ndax nit bëggul ku ko gën. dëgg la te boo ko yàggee woon ne nii laa mel di mel ni xale yooyu bu ñu amee di ko siiramtan amee ah, eh, <laughs> di ko kii. waaye am na ñoo xam nag nit ñoo xam ne seen cër noonu lañ koy def. Mm-hmm. di ko di ko uh, tiitaroo ci kaw ñenn ñi. Mm-hmm. waaye Maodo waxuma sax yàlla waaye civilisation am rek. wallaay ak nitéem. Mm-hmm. ëpp na loolu. wallaahi ndeysaan. waaw ndax dafa am gan gu mos a ñëw ganesi ko. waa Tiwaawan ñëw di ko ko teerule mhm. ah bi ñu toogee nag gan gi daal di ni yéen waa Tiwaawan yéen ñàkk fulla mhm. ñu ne ah lu tax mu ni kii leen yàlla jox di seen xaaj Maalik mii ni ko yàlla melal mhm. nga xam ni ku ko soog ku ko neex lu mu ca ñaan yàlla wala yonante bi mu defal ko ba même àjjana kum ci ram nga dem ca ngeen nekk ak moom seen coono bi wasifa suba ngoon dañ dañ dañ <laughs> def leen lu leen neex bu ngeen boo ëllëgee mu yóbbu leen allahu akbar Maodo daal di wëcci bopp ba ne cey wolof <laughs> surtout Kajoor est-ce ne ah xam naa day wax dëgg yàlla de bu ma xamoon ne hmm. salaatul faatihi benn rek yàlla nangul na ma ko ci hmm. dinaa ci mën a dëgg waxuma waa Tiwaawan waaye ramu xeetu Muhammad wi waaye nag Maalik xamul jëf ju rëy jëf ju yàlla nangu la xam ndax xaw ma nangu na koom déet lu mu rëy rëy te nanguwu ko mënuma cee teg ci tus mënuma cee jëriñ kenn waaye lu mu tuut tuut bu ko nangoo ma maa ngi cee jëriñ yëpp te xaw na koom yàlla na ko yàlla nangu na yow la wóor waaye man wóoru <laughs> wallaahi daa di <coughs> góor ga ni ko dangaa woyof rek waaye xam nga ni yàlla nangu na ko mu ne ko ah, yow la wóor nag waaye wóorul Malick daal di kay Kajoor mhm. xam naa bu ngeen gisoon ku yéeg di ngeen ko toñ waaye Malick de yéegul allahu akbar waaye gis nga ko moom ku doy waar la waaye nag saayiram rek mhm. doy na baati ñu ñu baree bare mhm. waaye saayiram rek seen Cheikh nee li gën a doy waar ci Maodo <clears throat> nee na mission ni mu ko réussiré kenn xamul nu mu toll te nee na li ci dàq nag jëfandikoowul wilaayaam moom moom Seydi Hadj Malick rek problème yi am yëpp hmm. nee xel mu rafet la ko résoudre waaye mosula laal wilaaya gi ba ba muy dellu wilaaya gi jànq la Allah jigéen la joo bu doon bu jéebulooñu ko jànq njànq ga bikaara ba kenn dindiwu ko noonu la ko delloo te teewul nag xel mu rafet mi rek li mu réalisé lépp ci la ko def ndax wilaaya ji nee da koy sakkanal bu ëllëg ndax lu am ëllëg lu waaye am ci cër di ko xeeb mm-hmm. ndax soxla su bari lu soo ca war a faj moo tax du du jëfandikoo wilaayaam fii ci àdduna mm-hmm. bu demee ñu ne ko ah, la nga jaamoon jeex na mu ni wilaayatuhu tabqa mada dëhri bikratan mm-hmm. tusaanu laha al asraaru baada mu ni wilaayak Maodo nee jànq lañ ko la delluwaale kenn jébbalu ko ba tey. est-ce que ndax sakkanal ko. Mhm. ñu ñoŋalal ko wilaaya waaye ñi ko doon it nee gore nañu ba mosuñoo laal wilaayaam googu di ci résoudre seen problème. est-ce que est-ce que ci seen xel yu rafet ñoom it mhm. mhm. fa wilaaya ga. macha allah rabbi mbokk yi xam ngeen ni euh, lii ñu jot jàng rek. téere la boo xam ni euh, nii ko Chérif Ibrahima Haydara Tijani atalallah umra yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla taxawu ko ni mu ko bëggee mm. ba tax mu ne fatiha gi dañ koy commencé ci sunu mm. baay bii di Seydil Hadji Malick Cissé Jingué Sëriñ Pape Malick ci Sëriñ Pape Malick mm-hmm. euh, maanaam li li ndaw ñi mën a jàngee ci moom mm-hmm. que modestie bi mu am topp ci ginnaaw magam topp ci ginnaaw sëriñam topp ci ginnaaw baayam muy sëriñ Cheikh ba déggoo benn mbooloo boo xam ne daayira la wala mbooloo la bu askanoo ci moom nga xam ne dañ naan daayira bi daayira Pape Malick la wala boog bu amee bariwul man man bokkul ci li may dégg yëpp am jàng la da ciy jàngale mm-hmm. meloom yi daal da ciy jàngale rek mm-hmm. joxe exemple da ba muy ndaw ba léegi lu mu def xale yi dañ koy toppandoo mm-hmm. li ngeen di wax dañ koo fan mm-hmm. beere bi mu daan sol sax mm-hmm. taxoon na be ñi daan ñi daan jaay beere booba da ngay ñëw jënd si ñun la jeex na xale yëpp beere lañuy ñuy sol bañ naan ko boroom beere bi ndeysaan ci wàllu daayira itam li mu amoon ci daayira kenn xamul nu mu toll ci xale ak xale jigéen ak yu góor waaye bi mu sarsi dina ñëwee dafa seeyal daayiraam yépp ci biir daayira bi nekk simple membre hmm? ci daayira bi te ñu mbokkal daayira bi ñu ci bari ci ay daayiraam la ndax simplicité am rek ndax moom li ko ñor mooy sëñ Babacar di way juram hmm. Seydi Hadj Mari di maamam ñu tudde ko ko hmm. soxna Sukan di yaayam Serigne Cheikh di magam mu xeeb nag mageelu njureel gi tax ñu naa mooy magam dem ca mageelu eh, ruux ga waaw ndax sëñ Cheikh mën na ñaar yëpp man hmm. na mbokkum sayir waaye mbokkum biir la dàq nag hmm. mu def mu summeeku ci moom bu doon jaan dañ naa dafa xubbeeku mu summeeku ci moom hmm. defal ko lépp waaye daayiraam yi mu amoon kenn xam nu mu toll waaye yëpp da leen a seeyal ci biir daayiratu Moustarchidine kon moom njëkkoon ay daayira avant waaw ba ñëwee mu mun leen dugg leen ci daayira bi yéen ñëpp. ànd ci ñoom nag simple membre <laughs> waaw. moo tax ci jamono de ah loolu loolu wolof mënu ko. <laughs> waaw loolu moom wolof mënu ko. est-ce que sama daayira yi nga xam seen ci ci lool la sama daayira yi. nangam waaye nag ndoonool Seydi Hadj Malick mosul wax kenn sama taalibe. ndeysaan sama mbokkum taalibe rek. daf daan wax ne nan xewil tarbiya. Hmm. ndax la mu laaj bu fekkee ne fekk defoo ko doo jariñu hmm. la mu laaj pour nga jariñu ca kon ñu bari duñ jariñu ñu ni ko kon lu ñuy def mu ne uxuwa fraternité boo ak bokkoo hmm. moo tax sama mbokkum taalibe rek lay wax ca jamonoom moom waaw ca jamonoom kon nag kiñ ko tuddee bu dee nga xam ni moo moo gën a ndawe ci sët yi bu melee noonu du yéeme ndax Seydi Cheikh daf ne paaka day ponk ba fi hmm. ñuy jàpp sore naa cat la hmm. waaye loola metti ci paaka cat laa la ko def mu ni inna shabasa hmm. ñaw ka baidatun sore na an miqbadin ak ngëbukaayu paaka ba lakin nahar tastawjibu tankiila waaye metti ca paaka ba cat laa la ko waral waaye nag sore naa fa nga jàpp di ponk ba Euh, Pape Malick itam dafa nekk bu Seydi Hadj Maalik doonoon paaka mooy cet la ndax sëtam yi biñ ko koy tuddee booba moo gën a tuuti ci sëtam yi hmm. fekk na fi ñeneen waaye ci ñi gën a ndawe ci sëtam kon paaka bi di Seydi Hadj Malick hmm. Pape Malick cetam la te sëñ Cheikh nee na cet cetleeg ponk bi ci paaka mhm. lu ñu soree soree lu la metti ci paaka bi cet lee la ko def waaw kon nag da bëggoon ñu bàyyi xel mhm. Pape Malick mhm. bañ koo jàppee ndawe gi te xool ko ca biir ku simple la itam bëggul mbooloo ak xumbeen ba daanaka ñi muy àndal ñëpp ay gone yi góor lañuy doon ak yooyu. Mm-hmm. ñun ñi daf daan ànd ak ñun ceef cin cinéma. Uh-huh. man bokkoon naa ca ñu daan jël benn chauffeur bu ñuy wax Baye Jaan Aatu Njaay ma nga dëkkoon njàndoxum foofu ñu denc Serigne Cheikh. Mm-hmm. moo doon chauffeur moom daan yóbbu booba. buñ demee nag am na espèce si nakk yi ñu daan jaay foofa ca cinéma boy ca bala noo dugg mhm. ñu koy wax rakkal ñu naa rakkal rakkal ju ñu suukar mhm. bu ko def pap ni waaw nu ngeen def ma jëndal rakkal ma ne ko man jox ma sama njëg ma lekk ko <laughs> parce que yii rakkal dong la mu ne ma da salaaw duma dama koy jënd du la jox xaalis bi <laughs> waaye lu ne lu ne def nañ ko dañ daan ree bi ñu tëjee Serigne Cheikh mhm. fexe na ba adhéré nu nun ñëpp ci PAI yi Hmm. te boo pay parti clandestin la dafa day day nëbbu. Hmm. kenn du ñu xam booy adhéré duñu la jox euh, kii carte. Hmm. dañ lay wax sa numéro rek nga mokkal ko. bu ñu rappelé nga xam ne woo waaye doo ñëw di wane carte tellement dañ daan nëbbu booba. est-ce que booba Majmour mooy président bi. waaye biñ jàppee Serigne Cheikh ma Pape dafa sos. Euh, ab section ci daara ji hmm. man mii ca laa woon buñ daan bind euh, yëf yi ñuy bind ci ci mbedd yi hmm. dañuy fekk oto bu yàqu nu dugg ci biir bind ci godorong bi fa euh, wax li ñu bëgg lépp ak ak craie hmm. dem moo tax yàlla nu musal waaye am na kuñ da Charles Guèye ku ci ràññiku woon la ci eh, PA yi tëjoon nañ ko sax waaye xaritu Pape Malick la woon lool mhm. ba tax na Pape Malick dafa masa bëgg sëñ Cheikh lu ko laal rek xori ko mhm. gis nga sëñ Babacar radiyallahu anhu xam nga bisu altine la fi jóge yoor yoor mhm. fekk na ca biig sa di sam di di dimanche maag Pape noo nga fanaan gàmmu ndey wele rahmatullahi alayha ndey wele nag soxna Maguette Wele mi ko jur. Mhm. moog Seydou Wele ak Amath si Wele ak Zeynab Wele. Mhm. ñooñu ñoo bokk ndey ak bàyyi góor gi Abdara Wele ma yoroon rawul Seydi Hadj Malick. Mhm. mooy seen way jur. Abdara Wele nag eh, maam kii ak eh, Abdara Abdara Wele baayam moog Seydi Hadj Malick ñoo bokk eh, Alpha yi Mayoro ko jur. mooy ndijaay Seydi Hadj Malick Abdara Wele moomee nag moom lañ joxoon raw Seydi Hadj Malick moo ko daan moo fa daan toog waaye ndey wele moomu mu jur nag mhm. te ndey wele eh, Magat Sarr mi ko jur mhm. ak Alaaji Malick Sarr eh, Magat Sarr mi ko jur kiyee ko jur soxna faatu si mooy taawu Seydi Hadj Malick moom la taaw loo teg ci amat si ma des ca guerre ba mhm. teg ci sëñ Babacar Fatou si moomee nag moo jur Maguette mu jur Ndeye Wele ak Seydou Wele min daan àndal di woy waaw keroog gàmmum lan fanaan maak maak Pam May je bi njël jot gàmmu ko tas nu dem booba pantare bi mu am ca lay tëdd mhm. ba bët war set war a doon altine waaye ñu tëdd xaw a biddanti ba huit jot rek nu dégg yuux yi Pam ni dem ci étage bi ma ne xaar ma ma dem seeti ñëw rek ni ma góor gi de maara de taali ma ni ko ah mu ni waaw waaw nii moo tax keroog bi mu fi jógee di at ne ci yoor yoor mm-hmm. noo nga fanaanoon gàmmu gàmmu ndey wele ci di di dimanche ci ngoon ba tax yu bari def nañ ko maak moom mm-hmm. ànd fu ne maa ko magoon sax nag waaye wax dëgg yàlla moom daf ma bëggaloon boppam sama digg ak sëñ Cheikh daanaka ci pammaar yi moomu la jaar ndax da nekkoon Kër Matar xaali mu ngi ci ginnaaw Tiwaawan mhm. xam nga booba dañ daan noorwaan ba noor jotee ba ñu nawet dem na kenn amatul liggéey ñi jàngi alxuraan dañuy laxas mhm. dem jàngi cim kaang nekk fa ba noor ba noor bi jeex nawet bi ñëw nga ñibbi ci waat bay mhm. e, at mooma nag maa nga noor Kër Matar xaali maag ñu bari Matar Dem sama mbokk ca jingee sama doomu ndey la ak ñeneen ku ñu wax Mansour Dieng ñu dem ci kaang mu ñu wax bàyyi Mbond Fall Boubacar Fall mhm. kooka day taalibi sëñ Babacar boo xam ni te yàlla may ko ci alxuraan foo mën a jànge alxuraan feek ñëwoo même mokkal nga ci daara yi maam Mbond Fall mhm. ba mu beqil la beqi mooy nga mokkal ba pare ñu dina topploo toppatoo waat jox la ay booleeg yooyu mm-hmm. sa xel du dal boo ko deful mm-hmm. benn bis daaraam ja kër ga lakk xam nga kër mataaxaa yi ak Tiwaawan daanaka séenante bi néeg la mm-hmm. ni sëñ Babacar yebal ñëpp ni dem leen jéem a fay lakk ga waaye ñëpp Tiwaawan la ñu xëyee di dow rek dem dem lakk fay lakk ga mbond moomee nag a foofa laa daan jóge ndax buñ ne suba la àjjuma Tiwaawan la ñuy jullee ji àjjuma bu ko dee alxames ji bu ngoon jot nu dem taxani mhm. xëy yenu ko dem Tiwaawan ndax di ko yóbbu ko ca waañ wa ndax sëñ Babacar daf daan wax ne bari nañu fi andi xaalis waaye matt nu gënal mhm. ndax xaalis bi matt lañ koy jëndee moo tax nu daan taxas taxan mhm. di andi eh, bu ngoonee alxames nu taxan bët set nu ñëw àjjuma julli si yenu sayee ca laa xamanteeg Pape Malick nag ba mujj benn bis eh, Serigne Cheikh di fomp lu biroom Mm-hmm. ñu ko di renseigné waa téere yi Pa fekk ma ñëw Tiwaawan mu mu boole ma ca. est-ce que keroog ci laa jëkk a gisante ak Sëñ Cheikh. di waxtaan ak moom nag yow noo tudd foo dëkk ma wax ko sama tur ni ko man góor gi Serigne Massise Farma ca Jinge mooy sama papa moom nag mu xaddamu Seydi Hadji Maay la boo xam ni. Mm-hmm. sama taawu yaay sëñ Babacar la ko tuddee. waaye ca bisu ngénte bala gaañoo. ma judd mu tuddee ma Seydi Hadji Malick ba pare nag xañ ma yëf yi ci yi xale yi def yëpp mm-hmm. di ma jàngal buy dem ci waawoon day fas lay war booba togg ci gannaaw mm-hmm. bu ko defee sëñ Babacar ma ngay gàmmoo ca ca jumaay sëñ Haj Malick waaye góor gi maxtar Sall mm-hmm. muqaddamam la mu jur sama wëla réew Abdou Aziz Sall moom mooy gàmmoo ci xabru Seydi Haj Malick ci zawiyam bu ko defee maag sama papa nag foofa lay gàmmoo mag ñu bari Pape Matar Sall lañ daan dem ñi ci des dem ca jumaa yi sëñ Babacar hmm. bàyyi ngoor ba jaw ca kër amaat moo daan woyal si kii eh, Pape Matar Sall dama sanlia ñayi layi wajjeen abadan eh, lawa madanel moxtar bel xidame booba noonu la daan kii <laughs> bu ko defee nun foofa lan daan fanaan ma wax nag sëñ Cheikh melal ko sama papa mooy kan mu ne ak ah, kooku ay xam naa ko mooy tool faas ba ci jingir sax mhm. eh, ca la sun diggante ko dama daan wat nag àlla boros yi mhm. waaye wat naa sëriñ Cheikh ba tey wat naa sëriñ Abdou wat naa may kii Moustapha Lo rahmatullahi alayhi mhm. ndax yaayam ak yaayi sëriñ Cheikh ñoo bokk ndey ak baay te nag dafa doon poète maa ngi diiwaanam moom Moustapha Lo mooy ka Senghor rayoon mhm, mhm. waaw waaye loolu mooy sama njaal beenu ñëw ci Tiwaawan mhm. ba keroog ba nga xamee ne nag sëñ abdu mi ngi am soxna muy soxna Ayda Kan mii di doomi ndijaay usmaan Kan mi bokk ak yaayam ndey ak baay mu jël ko tudde ko soxnaa su ba pare jox ko ko keroog ba pour toog fa waaye keroog sëñ Babacar wax na ci sëñ Abdou loo xam ni ah, seede soo xam ni sëñ Abdou itam li ma dimbali ci sëñ Cheikh moom la ndax moom dafa nangu woon féete gu ma féeteeg sëriñ Cheikh. Mhm. comprendre ma dafa am liggéey bu mu ma doon defloo. Mhm. boo maa ngi Dakar de mu woo ma ni ma àjjuma nanga nga fa ñëw dama laa soxla. Mhm. ma ñëw mu jox ma am bind ni ma bindal ma ko. ma bind ko ba pare man ko ah, sëñ bi de wax dëgg yàlla yow xaw ma li nga def rëy na ci yowam de waaye man rëy na ci man ndax man dàquma fee bind te itam jëkkuma ci daara ji mu ne waaw waaye mbind mi dafa jëm ci Serigne Cheikh te xam naa ni nga deme ak moom kon nag moo tax ma woola di la ko bindiloo wa yooyu yëpp nag mm-hmm. man daal mënuma leen a fay macha allah sit euh, sëñ Mansour mu mag itam mm-hmm. noonu la demee woon ak man noon sëñ Babacar mhm. biñ koy woyal maag Moustapha Lo mhm. Seydou Wele euh, sëñ Habib mu sëñ Babacar mhm. Ousmane Diop Ndioba Moustapha Jibi Ndiouk ak Baara Ndiaye booba daanaka vingt cinq ans am ndax mille neuf cent cinquante trois la waaye fekk na boobu alaaji Abdu mag la. te moo ko daan woyal. Moustapha sëñ Moustapha taaw taaw sëñ Babacar ak si alaaji Abdu ñoo ko daan woyal te booba mageel gi ñëw na. Mm-hmm. moo tax sëñ Abdu nag sëñ Babacar ne ko tànnal ma ci xale yi ñoo xam ne comme sëñ sëñ Abdou ngi bëgg a màggee. Mm-hmm. te wóoruma dina ñëw ren ndax da dama dégg ni yaram wa da xaw a kii te daf ma koy rusa wax. Mm-hmm. ma da nga ma tànnal rek ay xale ñu entraîné ba xam. Mm-hmm. bu ñëwee baax na bu ñëwul nag. ndax ñu man ko remplacer waaye góoman dina ñëw ndax euh, dégg naa da ko dafa feebar waaye daf ma koy nëbb ndax comme dafa jege gàmmu gi noonee la ñu cinquante trois di ko woyal ba mu jóge fi nu continuer ko ci sëñ Cheikh ak sëñ Mansour kon mhm. sëñ Cheikh noonu la seen diggante deme ba yu ci bari ma di ko ko defal surtout mbind mhm. moo tax way yi ma gis ci biti yépp léegi mhm. bokkul ak yi ma daan bind moo tax li ci biir moo ëpp li ci biti hmm. ndax moom day bind rek daf daan wax ne mujj dundam hmm. dafa Omar Samba ni ko nee ko fàttewuma mbind ma waaye nag man damay def bu ma dikkalee këyit gu ma jot bind ca hmm. dama daje day may dajale kayit yooya nag maa ngi koy seet di wër di dajale bu yembee rek naa ko woowaat joxaat ko mu bindaat ko fa ko daan bind mhm. waaye malheureusement ba léegi ndeysaan eh, bu ko defee nag mhm. wax dëgg yàlla shérif itam mhm. gis nga sunu cosaanal xamante mu ngi aje ci ni mu meloon ci Serigne Cheikh foofa laa ko jëkk a gisee da daan yë ay camion ceeb ak yu ne ba sëriñ bi wax Omar Samb mhm. ni ko laajal xale bii lu mu bëgg mu ne ko dara lu sopp ko ak xam ni mu mel ci sama maam ma bëgg a dundal loola kon sëriñ Cheikh ne ko ne ko baax na dégg naa ko <laughs> moo tax tera biñ koy jox aasi mhm. mu Moussa Gueye maak Omar Samb la sëriñ bi yebal mhm. te doom ji mu tuddee ko sëñ Babacar mhm. maak Omar la yebal biñ ñëwee Omar ni sëriñ bi sëñ Babacar la ko tuddee sëñ Cheikh ne ko foogoon naa ko nag <laughs> waaye Chérif ku doy waar la moom nag moom Chérif defe naa moom lay mujjee eh, maamam la niru ndax maamam hmm. bi ko yonent bi jox tariqa bi boobu mi ngi beneen tariqa tariqatul xalwatiya imam bikri mi nga xam sarat fati ci moom la wàcc ndax hmm. dafa am ñu ni ñeen fukki at dugg ko xalwa di ñaan yàlla moon ko salaatu bi nga xam ne moo gën ci salaatu yi xam nga taatu ala nabi ay formule la mu ñaan ko nag mu woon ko formule bi gën ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi ñu woon ko këyit gi mu nekk waaye sëriñ Cheikh nee na mbindum leer la boo juutalee mu tàllalu boo dëppee mu won la kanam hmm? mbindum leer waaw mu jox ko ko ni ko bii moom la waaye nag jox nañ la ci ndigal nga di ko jëfandikoo waaye yow taxoo am na kuy ñëw mujjug jamono ndax eh, kii docteur mbir mi hmm. docteur la foofa la malaat yi gën a bare waaw bu ko defee comme bàkkaar dafa bari jamono yooyu muy ñëw. Mhm. te moom euh, saabu la bu day lakk sëñ Babacar deme na yi kafaare ci des yëpp day far bàkkaar waaye salaatu faati moom da koy lakk. <laughs> waaw mu ni kooka lañ koy xaaree moo ko moom. moo tax dosage bi ci bi ko seex def. keneen ku la jox salaatul yi hmm. dina bari sax barke naam. Hmm. waaye doo bi ñu doose bi mooy bi seex yor. moo tax bi ko yonent bi jox nag. wax ko ko. Hmm. jaaratan dañu toog du gént. Hmm? mu ne ko maa ngi lay bàyyi loo yoroon ma jox la lu ko gën. utruk jamia ma bihi axasta xata hmm. tafuuza kulla ma wucidta min gayri xalwatin wala idxaali subhaana rabbi daaimil kamaali mu ne doo ca duggante xalwa kenn du la ca dugal <laughs> <laughs> li def ba ba raw ñëpp ci kanam ñëpp nga koy defee ndax nee nañu yëkku kuuy ba bay jën bay lunk hmm. ci biir nit ñi la nag te mënuñu ci dara mënuñu ci dara <laughs> ndax nag kon ah bilaa xalwatin rabba hmm. wa rabbaw bi xalwatin hmm. fa shattaana maa bayna yasidayni man hala wallaahi waaw kii ci ñàkka tarbiya la xalwa la yare taalibe mi rabba bila xalwatin mm-hmm. asxaabahu alanan li ñuy def ñu ngi ko def ci kanam ñëpp mm-hmm. ba mel ni ñu mel xatta staqaamu mm-hmm. bañ jub fa yàlla laay sëñ Babacar ne lii daal mënuma cee teg lu dul yéem yàlla <laughs> ndax may yi mu may cheikh bi ko ko yonent bi jox nag baal loo yoroon ma jox la lu ko gën mm. mun ko ci charte xam nga seexit moom Serigne Cheikh waaw moom xam nga ni Cheikh it loolu rek. ku yent mi baal yor ma jox lu ko gën ko ah ci sart. Ah. mu ne ko ban mu ni ko ci kaw bu ma ko yoree. Hmm. ku ci jàpp te sellal ko ni ma ko bëggee ba ba jóge fi. Hmm. yàlla du xool sa benn bàkkaar boo reyoon fukki nit sax yoonam nekku ci. allahu akbar yonent bi ni ko d'accord fukki boo demee ci kashful xijaab mhm. yam ko sartal mu nangu yëpp ca la bokk mu soog ko ne moo tax Seyd Haaj Maalik ni amara nabiyu imaamana bi tanazzuli mhm. li ifaadati al axlaaqi bil wirdil jëli fa ajaabahu bi maqaalihi saafi rida mhm. fa jasal fa jasaahu rabbi an eh, fa jasaahu rabbi bil jazaa'il ajzali mhm. mu ne koy yonante bi de dafa amru xam nga mooy ordre amru waaw nag mooy permission mu ne amara jox na ndigal jox na ordre mhm. annabi yonante bi imaamana sunu njiit li di mhm. cheikh ah amar na bi bi imaamana ah bita bita nazuli ndax cheikh bi mu ko joxee bi ko yonante bi joxee salaat faati yow bëggoon a nangi dugg àll bi di ko def moom dong Cheikh ni ko yonent bi mu ni mu ni boo mu waxee nag loolu nag Cheikh ni ko ah, yonent bi ni ko nag mhm. lii ñu la jox nag du looy jariñoo yow dong dafa am ñu bari bàkkaar ci jamono bi nga nekkee mhm. moo tax ñu yeexe ko ba nga ñëw ñu jox la ko pour mu mu ba daal di faj seeni bakkaar kon nag du pour yow donc mm. moo tax mu ne amara jox na ordre annabi yonent bi imaamana sunu njiit li di Cheikh mhm. bi ta nat fuli ci wàcc Hmm. bu mu de ne tong ca kaw kenn du ci jot na wàcc lu tax muy wàcc li ifadatil axlaaqi pour hmm. jëriñ mbind mbindee fi ci lum leen di jëriñe bil wirdil jëli ci wirdu màgg wii moom la moom la wa day wàcc jox leen ko hmm. fa ajaabahu mu wuyu ko nag seex ni ko d'accord waaye nag jox ko sàtt yi nag fa ajaabahu mu wuyu ko bi maqaalihi ca waxam jam ko wax moom cheikh mhm. ah, asxaafi wax ju sell ja ar rida di waxi ngërëm ni ko ah dinaa d'accord de in kuntu baban bu fekkee bunt lay doon hmm. waaw li najaati buntu mucc lay doon mhm. ci képp koo xam ne ki aju na ci man ak loo mën a def bunt boo ajoo ci man mucc nga mhm. néegu mucc la ku fa dugg rek mucc mu ne bu boobaa day di ko liimal ba mu fukki yëf ak ñaar bu ci ne mu ne ko waaw mu ne ko kon kon fa naam d'accord naa waaw moo tax Seydi Hadj Malick fa jazaawu rabbi bil jazaa'il ajzali mhm. laata moo mhm. fii tariqatina huwa al machiatu la min kaddi jusmaani mu ni dugg ci tariqa bi bu bu ko nawee sag njàmbaar ak sag mën de mhm. coobare yàlla la ndax sëñ Cheikh nee na sëy Seydi turandoom da doon nas ab caq booba lay tàqale muriit ak muraat ci hmm. bëgg ak ki ñu bëgg kii wut ak ka ñuy wuti hmm. mu ni ab caq la seex doon nas nee na caq bi nag kii ki ki ki ki kii wut ku ko ci wut fu mu bokk hmm. kooku mooy muriit bi man naa am ñu accordé ko man am ñu bañ ko accordé waaye muraat bi nag mooy caq bi doon génn di doxi ba waaye dajeeg moom ni ko foo jëm mu ni kër diw mu ni ko déet yow góor gi da doon naslub caq te per ji ci war a dugg ci nga bokk allahu waaw kooku mooy muraad kii murid dafa namm dafa bëgg mhm. kee muraad dañ koo namm moom est-ce que sëñ Abdou mi ngay dégg <laughs> al mu ne diggante murid ak muraad nag mooy faru jar ak faru jarul <laughs> mu ne ma jox leen ci exemple ñu ne ah, mu ne ndaw sa dafa mm-hmm. am ñett ñu koy jamaale daje fa benn bis nag mm-hmm. bàyyi beeg ndey ji woo waaye ndaw si nag ki amul dara la bëgg te mm-hmm. kii transporteur la kii commerçant la bu woomal kii nag moom da taalibe rek la waaye jàngkat la nag ah mënuñu koo dàq nag ndax moom la ndaw si bëgg ñu woo ñoom ñett yëpp ni leen waaw yéen wax leen bokk yéen ñett ñii du bëgg sunu doom ji kenn ku ne loo man commerçant bi ni man de mën naa ko may oto ak un million nday ji ni sas doom ah <laughs> ki ci des ni ko man de transporteur la mën naa ko jox dimbali leen may leen oto bu ñuy wute dépense ah njabootam itam ku ci eh, ñëw ma jàngal la ba nga am permis ma jël la. est-ce ndey ji sar xolle ñu ne waa nag yow nag loo am mu ne man de maa foog téeméeru ngurdu ak juróomi dërëm ak siquk tiir ndaw si yaay ndaw si ndaw si ni asas doom may wax mu di ci teg nag juróomi dërëm ah loolu de ëpp na nag mu ni loolu mooy faru jar sëy seex nag mu ne faru jar moo di waaja nga xam ni mm. dafay jamaale ñett mm-hmm. ñu ñëw ci ndaw si ba tëdd jot te mënatuñoo ñibbi ndax guddi na te duñu fanaan ak ndaw si mu daal ndaw si fekk yeneen xaritam yu góor yu xar yu tolloog ñooñu mhm. kenn ku ne mun la dama am gan bëgg mu tëdd si fa mhm. kenn mu daal di leen woon ak ñoom ñett nag mu daal di jël ñetti sér daal ni ki yow sama xarit laa lay booleel bu góor foofa ngay fanaane mhm. laata muy wax kii mu nopp nag dafa baadoo ni ko man nag mu ni ko yow teel nooy bokkub siir ma ak yow koo koy farwu jarul <laughs> ndeysaan waaye nee na taalibe tijaani mhm. farwu jar lañu macha allah waaw allah waaw kon mbokk yi mi ngi noonu euh, Cherif baax ak mag ñi noonu lañ leen ko diggee woon te noonu lañ ko tàmbalee ñi ngi ñaan ñu ñaanal ñu incha allah rabbi ba lépp rek jëm ci kanam bu ko defee dimension wu euh, intellectuel u Pape Malick mm-hmm. euh, nga xam ni bariwul ci mm. li ñu koy tàmm gis. Mm. koo xamante ni dañ ne doomu soxna nga. Mm. Eh, nga nekk sëriñ. ba pare eh, li ñu tàmm ci ab ab sëriñ mooy bu toogee arab lay làkk. firi ko ci wolof pare ci. waaye moom boo xoolee daanaka ci langue yëpp. Eh, ñu doon laaj ndax Pape Malick dafa génnoon dem jàngi wala ci ronu sëriñ <laughs> Cheikh rek la nekk ba ba yàlla defal ko loolu. moom sëriñ Cheikh mosu koo bokk ak kenn. allahu borom daara ji nag jàngal na ko sax. waaye sëñ Cheikh daal moo méngoo woon piir tarbiyaam ak njàngam ak àlluwaam mhm. gis nga français bu ko waxee da ngay defee ni mësula la jàng lu moom ah. eh, dafa doon koo xam ni daal mhm. yàllaa ko may ndaxte bari na sax ñu raxas dem ci daara yu nekk mhm. waaye moom demul ci jenn daara mësul génn kër Seydi Hadj Malick kër sëñ Babacar waaye fu mu waxtaane dinañu xam ni kii am na lu mu yër mhm. waaw surtout nag li ëpp solo mooy mën a communiquer xam nga mhm. nit bari nañu ñu jàng sëñ Cheikh nee na gis nga gàmmu nii mm. nit dina ko def man sax te te amul xam-xam ndax boo réyoo làmmeñ sëñ Mansour moo doon wax la boo réyoo làmmeñ xàmmee fiil ak faayil foo fanaan ñu ni kii kii amul moroom mu ni waaye waaye Pape nag moom dafa xam jamono xam milieu bu ne bu fa demee nu ñu fay waxe mm-hmm. xam nga ni muy def bu demee Touba. waaw moom la sëñ Cheikh daan yebal poroxaan gàmmu gàmmu sëñ Moussa Bachir boo mooy mm-hmm. dund mm-hmm. ba ñu wutal ko fa am néeg boo xam ni dalam la kenn du fa dugg bu gàmmu xatee paase waaye fu mu fekk ab xotteeku bu waxtaanee rek mu mu mu gaaru waaw muy koo xam ni itam euh, di xam na mag ñëpp. Mm-hmm. waaw jël na seeni xam-xam ak seen waxin ak mm-hmm. seen yar. Mm-hmm. yàlla dogal euh, ci ki ko ñun ñun ñi surtout maa ngi moom ak ñeneen. Oustaz Ousseynou Diène li nu xam lépp ci moom la jóge ginnaaw yàlla. Oustaz Ousseynou Diène nag. sëñ Cheikh dafa yoroon daara ji mhm. waaye bi mu amatul jot mu bàyyi kook sëñ abdu mhm. sëñ Abdou jël daara ja teg ko ci loxol oustaz Ousseyne Diène waaye oustaz Ousseyne Diène itam nag Marème Kane mi ko jur di yaayam mhm. moo soxna Astu Kan mi jur Serigne Cheikh ak sëñ Abdou Abdou Abdoul Amit Kan a ko jur Marème Kan mi jur oustaz Ousseyne Diène Souleymane Kan a ko jur te Souleymane Kane ak El Hadj Abdou ñoo bokk ndey ak baay. noonu la deme woon. Mhm. mu seen doomi ndey. Mhm. gis nga sëñ Cheikh daf daan def at mu jot mois de décembre bu ñëwee. Mhm. mu woo ma jox ma ñetti costume ni ma bii yaa ko moom bii Pam Malick ko moom bii Oustaz Ousseynou Diène ñun ñett rek loolu def na ko lu yàgg. ba yàgg mu woo Pape Malick ni ko assisé ah, de xanaa sama costume jotatu ko <laughs> mun ko wax ah, léegi dafa pax dafa bëxër <laughs> ca la ca ci waaye at mu jot mu def loolu oustaz Ousseynou Diène mooma nag kooku moo daan moo fexe woon ba modéré sun daara ji mm-hmm. di nu bind di nu ay théâtre mm. am na théâtre buñ defoon ca ndar mm. les dix mm-hmm. dañ ko da ko oustaz Ousseynou Diène da koo bind ci arab jox nu ko nu di joué ji ko ndar jël nañ fi ay coupe ba tey coupe nationale ci théâtre te Pape Malick di joué Moussa man ma joué Firawna keroog nag xam nga Firawna <laughs> Moussa dafa rey nit euh. do dem di dem mat bëgg a dem Madian mhm. ni tuub ba pare di ko nëbb kookaa ah. ñëw ci moom nag ah. ni ko ñu lay seet mhm. mu génn nag di dow nag léegi nag bi ñuy joué pièce bi ba si foofu mhm. moom pa may comme moo joué Moussa mhm. muy roño di kii nag di préparé spectacle bi noo ngi dégg xam nga waa Ndar yi ndar ni yée Moussa ngaa roño mhm. xam nga ñoom toxu roño lañ <laughs> keroog dama ree sax ci kaw seen bi <laughs> que waaye théâtre bu ne def na ak Serigne Bara Diagne nga xam ni nii xew ci jamono fosé ba pare wut ko la ko daganalal pour nga jëlaat ko. Mm-hmm. xam nga dina am ñu bari ñu mu dal. waaw boobee nag eh, man maa joué woon keroog sëñ Baara Diagne. Mm-hmm. maa doon daganal posé ma. <laughs> maa joué boobu. waaye fu ne Dakar gi ñëw nañu fi. Mm-hmm. def fi fii ci cëriñ maa daan way na kër yi. Mm. waaye keroog sama baat dee. oustaz Ousseynou Dieng nag mu yor micro bi naa laa ilaaha illallaah Cissé lébi yi dañ ko liggéey ma kobos ko ni ko oustaz micro nga yor mu ne dama koo kepp dama koo kepp ma ne ko ak ngelaw loo ko loo koy macha allah kon eh, mbokk yi ngeen ngeen gis ni am na benn dimension boo xamante ni. Eh, waaw Serigne Pape si tolloon na fa. Eh, ci dégg ngeen ci biir waxtaan joué na sax ay théâtre pour rek jàngal. Euh, génération yi nga xamante ni ñu ngi ñëw pour it wane ni lu mu nekk nekk nekk doomu Serigne Babacar Sy radiallahu anhu mm. am na lu mu war a jouer role bu rëy ci mm. société bi mm. te nag yàlla euh, yàlla kattanal na ko ba liggéey na ci liggéey bu rëy rëy rëy rëy ah, euh, dimension ak ak ak ak ak këru diine yi conflit bu xew mm-hmm. moom lay jëkk yoon ni ca suuf exemple bi moo di sëñ Cheikh dafa toog benn bis benn tubaab fexe ba gis ko. moom Serigne Cheikh. waaw ni ko sa coono bu ko sa coono bi lu tax nga kër kër yi ba gis ma. Mhm. mu ne ko nun dañuy mbooloo moo xam ni benn ONG lañu. Mhm. waaye li ñu gën a bañ mooy kuy néewal nit doole. Mhm. wala nga di ko xeeb te danu yëg ni yéen tiijaan yéen a gën a bari. ci jullit yi ci réew mi mm-hmm. waaye murit yi dañ leen a yàpp est-ce que ndax ñoom it defe nañ ni ñoo yor économie bi mm-hmm. ndax ñoo ëpp xaalis ñu di leen yàpp nag ndax loolu mm-hmm. nu bëggoon leen ay milliards lañu yor yoon financé leen pour ngeen yar leen seetal leen sëñ Cheikh ma nee na ma xam ni lii pexe la nee na ma ne tekk ba yàgg ma ne ko foo dal mu ne ci hôtel tel mu ne ko ni ba ma wax ko ko mu ne waaw kon demal dinaa la tontu nee na daal woo Pape Malick hmm. ni ko demal ci sama papa Abdoulaye ni ko am na gan gu fi ñëw tubaab la nangam nangam hmm. am na lum ma wax nag dinaa ko ko wax xam naa ni dafa dale ci man waaye bu fi jógee foofa la jëm te lu mel noonu lay waxi ñooy ndax réew mi foo dem xeexub diine nga fa mhm. te tu ONG yi ñoo ko sos mhm. kon nag bu tey réew mi bu takkee dañ naan jullit yi ñoon la ñu mel mhm. te yonent bi rek lañ ciy xas boo demee nee ko dina fa ñëw waaye bu fa ñëwee bu mu ko tontu na ko ni rek na ma déglu pam maay daal rocciku ca guddi dem fa allahu akbar sëñ di gis chefu koo xam ne chef la ci agent secret yu mag ñi mu woo ko jox ko xaalis bu bari ni ko dafa dafa am góor gu wax kon li tubaab bi wax mhm. eh, bu mu ko ko waxee ni ko nag fexeel ma ba xam tubaab boobu fan la dëkk ak lu muy dox ma nga nekk hôtel tel chambre tel xam nga loolu ñoom ñoom loolu yomb na leen mhm. mu fexe ba gis tubaab ba waxtaan ak moom ba xam lu mu fiy wut ni ko suba sax Touba laa bëgg a dem <laughs> waaja suba dina am tubaab bu fi ñëw dina la wax nangam ak nàngam dina la dig nangam ci xaalis waaye ne ko ñoo tas réew mi ndax guerre yi ngay gis ak terrorisme bi ay mhm. jullit di ko def di lakk jàkkaar yooyu ñoo ko ñoo leen di financer. Hmm. te buñ ko buñ ñëwee Sénégal dinañu fexe ba murit Tijaan ak murit di di di reyante mm-hmm. ñeneen noonu te bu boobaa yonent bi rek lañ la yàq deram wallaahi ah, ndax murit ak tiijaan balaa ñu am valeur mm-hmm. ñu àndandoo te bañ a xeex mm-hmm. Pape Malick daal di wax loola sëñ Abdoulaye daal di ñibbi ci balaa ñoo ñaa ñëw di ko fekk <laughs> nee ba mu ko defee nag mu mu daal di wax sëñ ni ko léegi nag ñu dem ci sëñ laat wax ak moom ba pare tubaab bi wax ko la mu wax sëriñ Cheikh ni ko tiijaan yi dégg naa dañu ne ñoo leen ëppee ba tax dañ leen a xeeb teg leen i dof kon nag nun loolu duñ ko seetaan ñoom yow dinaa la jox loo bëgg ci milliard te ngeen ngeen yar leen te jab laat ni ko foo dal mu wax ko ko mu ko kon nag toogal déglu ma sëñ nee na toog na fa lu mat weer gisatuma gisatu sëñ Abdou Lahat nee na dafa ma bind lettre anonyme di ma saaga ma ne ko ndokk de waaye nii léegi bu fi fekkuloon kilifa yu mel noonu fu nu jëm ba léegi kon réew maa ngi tàkk ci xeexub tariqa waaye Pape Malick lay yónni ca suuf moo doxi loola bari na nag yu mel noonu yu koo xam ne moom la koy doxloo mhm. waaw ndax moom kenn ku ne dafa xam ban vocation mooy sa bas waaw dafa xam nit ku ne xam na lam lay yónni mhm. ak lam lay doxloo moom daal doy na waar Chérif nag mhm. li maamam defoon la def mm-hmm. tanazul boobu mm-hmm. wàcce ca kaw ñëw dugg ci maas gi mm-hmm. pour jëriñ leen ndax nee nit ku jëriñ ku jaxasool moom doo xami problème am ku xamul jàngoroom doo ko faj koo jaxasoo nag xam soxlaam xam jàngoroom xam priorité lu lan mooy priorité am moo tax moom dafa jaxasoog maas gi def ko ay daayira def ko ay xadaratu juma def ko ay nganale mm-hmm. loolu nag ab liggéey la boo mm-hmm. xam ni ci jikkooy maamam la ko doon ne moo tax nu ngi koy ñaanal lu mu bëgg a def rek yal na man yal na ko man fukki yoon parce que Serigne Cheikh nee na ñëpp a bëgg lu baax mhm. waaye am matériel lu baax nag mooy tax nga mën a def lu baax te mu am matériel lu mooy loo bëgg man ko waaw mhm. ndax nee na boo tabee te amoo xaalis mhm. foo fekk problème bi doo ca man dara ngay matt baaraam jiwu cax rek mu ne waaye bu la fekkee loo boo soxla benn am am ca fukk. Mhm. man koo faj. Mhm. nee na baax nga am nga matériel lu baax. na mhm. nag wax dëgg yàlla. baax na waaye itam am na lu ko yàlla may loo xam lu mu bëgg a faj mhm. bu ko mu dul lépp it mu mën a faj genn wàll ga alhamdulilah tax na da dañuy ñaan mhm. lépp lu mu bëgg a faj rek yàlla na ko man fukki yoon te yéen ñi koy àndal di ko jàppale itam góorlu leen te xam ni mhm. yàlla ku mu tànn tànnal la te itam ku amul ku la jàppale loo bëgg a def doo ko man dëgg kon nag yéen a koy jàppale ci mission maamam bii mu taamu Sénégal ay baayam ñëw fii di ko di fi liggéeyal maamam collaboré ceeg njabootu maamam fii <laughs> mhm. yàlla na ko ci yàlla jàppale tam ca collaboré nag kenn ëpp ci Alaaji Abdul Aziz ak mhm. Serigne Cheikh mhm. su Cheikh bu dëkkeek yow boo ko joxee xaqam sa mbir day jëm kaw waaye boo ko réeree man na laa gaañu moo tax bi loolu mi ngi ko Habib dëkkeek noonu ci Pikine mu ne ah am na eh, eh, kii ay eh, kii waaye am na inconvénient mhm. ñu ne ko luy avantage bu ni buñ ko joxee xàqam lépp baax na mhm. waaye buñ ko xàñee xàqam nag bañ ko respecté yàq na mën naa yàq lu bari mhm. asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilah rabbil alamin mbokk yi xam naa ni lii bu ko nit ñi seetaanee dinañu gën a am kóolute ci fi nga xamante ne bii teg nañ fa seen tànk mooy xool li nga xamante ne bi mag ñi ñu ngi koy dund ñu koy xeeñtu di ci jéem loo xamante ne bi bëgg nañ ko ngir seen àdduna jëm kanam waaye seen alaaxira it baax ñi ngi ñaanal sunu mag mii nga xamante ne bi yàlla euh, bàyyil nañu ko fi yàlla nañu ko fi yàlla gën a yàggal ndax lu bare bare bari ñu ngi koy xam ci moom di ko jàng ci moom di gis ci moom it loo xamante ne bi tabaarakallaahu képp ku ko rey euh, li nga bëgg lépp di nga ko am ndax euh, ci modest gi tabaarakallah waaye ci xam-xam gi euh, bari na këru mag booy dem euh, di nga fa fekk lu bare bare bari ci ay teraanga waaye la ñu daan dégg ci sunu mag ñu baax ñu ne noonu la ñu daan def bi ñu ñëwee fii loolu la ñu fi fekk fekk ñu fi lu dul sijaada buy jaamu muy jaamukaayu yàlla waaye fekk nañu fi lal bu nooy bu rafet bu neex a tëdd waaye dañ ko lal ay téere ba mu fees lii mooy wane ni nitu xam-xam la ku bëgg xam-xam la te bu amuloo nit tabaarakallaahu li li ko yàlla defar rek doy na sëkk mooy turandoo Seydil Hadji Malick la waaye mu bàyyi lépp jàng loolu nag la ñuy ñaan yi nga xamante ne bii dégg ngeen ko ko sunu wayjur wii sunu wayjur wu tedd bi sunu baay bu baax bi Chérif Ibrahima Haydara Tijani e, yal na yàlla gën a guddal fanam e, dégg nga li sunu baay Alxaaji Malick Cissé ji ngay wax lépp yàlla la ko yàlla defal yàlla boo wute dara yàlla na nga fekkee lépp fa tabaarakallahu e, li nga bëgg ci njaboot gi yaa ko xam te it nag du sax njaboot gi nga xamante ne bi yàlla yaa ko yow moom la leen yàlla booleel waaye njaboot la goo xamante ne bi ku nekk jóge na ci gox ñëw fekk si la waaye ku ñëw bu joxosowul ak yow du xam ni nga mel Haydara yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla barkeelal la lépp loo teg loxo yal na ci yàlla teg loxoom xam nañ ni loo teg loxo yàlla teg na ci loxo ba pare waaye yal na yàlla puusal ko boppam ba nit ñi yëg ni yàllaa ko puusal boppam loo dugg fa tabaarakallaahu xam nañu ni doo dugg daray caaxaan ndax bokkoo ci xamoo ko Eh, bokkul sax ci sa ci say ci say ci say wax ay hmm. waxi caaxaan wala ay jëfi caaxaan bokkul sax ci yow. Hmm. kon tabaarakallaahu Haydara mag ñu mel nii di la ñaanal doo mën lu dul gudd fan doo mën lu dul am lu baax doo mën lu dul jëm kanam. Ah. képp ku la toogaanu yal na yàlla wëlbati xelam ba mu yëg ni la mu doon def baaxul mu ñëw ànd ak yow ci liggéey bu tedd bii ngay liggéeyal sa maam te bu la neexoon toog kaalawu laaj addiya te daf lay lew domm waaye yaa ngi dimbali jaam tabaarakallaahu ginnaaw bi mu yaakaaree yàlla ci ay mbiram lépp waaye tàllal la loxo nga jàppale ko ci côté bu mu mën a doon kon Seydi Hadji Malick si Sy Djingué ñaan na te émission bi tabaarakallaahu mooy Chérif Dabakh ak mag ñi fa tabaarakallaahu li nga xamante ni bi moom la ñu bëgg a tëjee eh, di gërëm képp koo xamante ni bi yaa ngi liggéey ci organe bi di Cherif Dabakh TV ñu andi woon émission bii di Cherif Dabakh ak mag ñi ma waxoon leen ko ci njalbeen nga ni Cherif eh, Sidi mbay Mbaye Oustaz Sidi Ahmad mu Cherif Ibrahima Aidara Tijani moo ko waroon def waaye am ngant mu yónni ñu ci ñu ànd ceek Abdoul Aziz mi nga xamante ni bi Diop muy rakk Omar Diop waaye di gërëm it Abdoul Aziz Seck eh, Cherif dafa am lu lu lu neex daanaka ay turandoo soppeem rek a fi nekk. Ah, Abdoul Aziz Diop moo nekkoon ci caméra bi waaye Abdoul Aziz Seck mooy hmm. euh, technicien ba. Ah. waaye Abdoul Aziz Thiam mi moo toog micro bi di ah, laaj kon tabaarakallaahu yal na yàlla yokkal ko ko di gërëm Atoumane Diol mi nga xamante ne bi fekkee na jotaay bi ak lépp loo xamante képp koo xamante ne bi rek yaa ngi topp Cherif Dabakh TV ak foo mën a nekk ci àdduna bi. Hmm. kon maam li ñu lay ñaan rek mooy euh, lan ngay tëjee ak ñaanal Cherif Dabakh TV. ah xam naa de inamal amalu bi xawaatim yaa mhm. jëf ju gaa ci am solo alhamdulilah yal na ko yàlla defal daal muy liggéey boo xam ni bu yàlla nangu la parce que Chérif mhm. euh, boo déggul jamono doo mën a liggéeyal lislaam <laughs> dafa wàcc ba mhm. tolloog li jamono laaj te xam nga média yi paaka ñaari boor la mënees na cee yàq mhm. waaye mënees na cee defar mhm. waaye nag ñu bari dañoo tànn yàq gi mhm. ndax bari na réseaux sociaux yi luñ yàq waaye bari na lu mu defar moom nag mu tànn côté positif bi bàyyi bu négatif bi yàlla na ko ci yàlla dimbali na a ah, dañu ne nag booy liggéeyal aw nit mhm. da ngay wàcc ba tolloog ñoom mhm. am na déguisement bi moo di sol eh, lu yëri sëriñ mhm. yor kaala déguisé nga ko ñëpp dañ lay jàppee sëriñ doonte safaan bala mu ni bi ci des nag di cër di nitu yàlla boo soloon kiloot sax cër baa nga ca yow waaw moom it mu ñëw nag xam ni jamono lii la laaj mu déguisé ko ànd ci ak ñoom fekk lislaam lay liggéeyal te bu melul noona mhm. du ko man dëgg la mu wàcc nag tanazul ba ñu waxoon maamam mhm. mu tanazul wàcc ànd ak maas bi pour liggéeyal ko li mu bëgg a liggéeyal yàlla na ko yàlla defal ci loolu réussite bu bu ëpp li mu ci jort woon te xam naa ni yàlla dina ko def insha wax dëgg yàlla ah di xam ni itam mhm. Sénégal li Serigne Cheikh waxoon ni réew mu naqaree dunde la te neex dee ñu ni ko lu tax mu ni feeg yaa ngi dund mm-hmm. say noon duñu wax ci loo yow lu baax mm-hmm. moo tax dafa naqaree dundee mm-hmm. waaye boo dee kenn dootu wax sa sikk lu baax rek la ñuy wax ci yow moo tax ni mu naqaree dunde la te neex a dee ba tax na sëriif itam na xam loolu te itam euh, am na yoo xam ni toppatoo ko. ñàkk jot am jot la. waaye am na koo xam ndax sëñ Cheikh nee na waaja dafa am ku ñëw ni ma diw daal mi ngi lay yekk lu ne. Mhm. mu ni ko ah kooku man nu ma defe woon ni dafa tukki sax. <laughs> ndeke mi ngi fi mu ni ko waaw mu ni ko waaw ne ko baax na baal naa ko. est-ce que. waaye jeex na. allahu akbar ndaxte dañu ni weer weey ca kaw. Mm. xaj bi ne ci suuf di baw. Mhm. lu mu koy wàññi. wallaahi xanaa baatam xottee koo ca. wallaahi na. <laughs> Uh-huh. am na yoo xam ni yii. sëñ Cheikh nee na. Hmm. booy yéeg te ku la laal nga wàcc fayu. Hmm. doo yéeg moom it du noppal waaye yow it doo yéeg. ñu ko nooy def mun da ngay continuer am na foo xam boo faagee dóor la jot. wallaahi la. waaw <laughs> <laughs> ba tax na. incha allah góorgóorlu rek. incha ndax senegal ñaare ku ñu féetee lul rek. Mhm. Mhm. mbooloo. Mhm. Ah, fekk ndax dina doon waa dina am waayam joo xam ni. kenn du ko xam. wala rombee fii doo ko sarax sax. wallaay macha allah te fekk ma ngay aras. waaw ba yooyu yépp àdduna deme noonu rek. am na foo xam ne fa demee. xol sedd. incha te xéewalu en attendant gi. jaruko ko jaru daal te mooy en attendant la rek fii <laughs> xéwalu en attendant hmm. ñu ne léeb bi de yàqu na ñu ne lu tax mu ne ñaar tolloo wu ñu niroo wu ñu te ñu nga ànd hmm. ñu ne ah nekk leen ba ñu wàcc ba ñu wàccee ndeke dañuy soox ñoom ñaar ñëpp ndeke laagoo gaa leen boole <laughs> ñu ni inna tuyura ala taana daal alhamdulilah yàlla na nu yàlla nangul suñu jëf ju baax jéggal nu ja des juf safaan ba ah lu nu yéene ci def ko ci lu baax hmm. yàlla na nu yàlla may kattan gun ko defee. te may nu xolu muñ. ak mën a du mooyu. lu dul noona. Ah, bu ko defee rek di leen sant. bu baax te feebar bii xew. Hmm. yàlla jële ko fi. ci barke mag ñi nga xam ni. Hmm. ah ñi ngi jaar yàlla ca la ko neex. Hmm. comme ñëpp mënuñu koo defal nag la ko neex. yàlla bu mu euh, sukkandiku ci. ñi ko neexul mu def ko aleeru gumba buy bay du xàmmee ñax bi ak ak ak ak ak ak gàncax gi muy mm-hmm. bi tax muy bay ñax mi ñëpp lay bay waaw lool rekk nag mm-hmm. wax dëgg yàlla moo ci nekk mm-hmm. yàlla na yàlla fajal nu ko daqal nu ko te bu mu ko yóbbu ci men réew moo ko fi andi woon na ko yóbbuwaat xam na fa mu koy yóbbu ci barke mag ñi amiin yaa rabbal alamin dëgg la jërëjëf euh, Hadj naa doon synthèse mm-hmm. ci li sëñ Fallou waxoon mm-hmm. te booba moom lay wax ak waa kër sëñ Touba yëpp mm-hmm. maam Thierno bi sëñ Touba di dem ca nattu ba moom la leen dénk moom maam Thierno. Mm. di rakkam ñu bokk benn baay waaye sëñ Touba yar ko wóolu ko lool. Mm-hmm. mu ne banaa leen ak seen baay Thierno. Mm-hmm. moo leen di jàngal sama gannaaw def ci yéen moo tax sama yar ci ci yéen moo tax sëñ Fallou daan wax ne. Mm. waa ji dees noo jàngal ban ne ar. Mm. ba ni nër waaye Pape Malick dañ ko jàngal ba mu ni ar mhm. yee yar ko ba mu ni nër mhm. ñu yee ko ba mu ni jar ku defe ne mën nga koo naxit it mënoo koo nax yar baa tax mhm. waaw kenn mënu koo naxitam ndax yeewu gaa njàng maa tax ba tax na loolu mooy mooy senteesu sëñ Fallou boobu rek jàng ba ni ar yeewu ba ni jar yaru ba ni nër mm-hmm. waaw loolu rek laa ci fàttoon a fàttewoon a su mag ñi la daal moom ñett yooyu yëpp boole na ko jàng na kaar yeewu na kaar yaru na kaar alhamdulillah waaw koy noo ngi profité di jaale nag mm-hmm. bee salaat mm-hmm. sunu njaal ci njabootam waaye ka ca jiitu mooy soxna maam baas nga xam ne maam baas moom mooy soxnaam moom masa doon soxnaam tegu ca keneen ñaar ñu jigéen la am safiyatu ak faatimatu yal na ci yàlla teg loxoom ñii ñoo xam ni mhm. ñoom ñëpp yaru nañu yaru pamma la ne moom daal mhm. doon nañ ko jëfandikoo ko mhm. waaw doo ci daje kenn ba mu war na may diw ba mu jëfandiku jëfandiku tax ñu naan kii doomi diwa du la woon boppam mukk maam baas nag moom moom yaayu daara rek laa koy wax ndax dafa xam nu ñuy waaye nag ci daara la yaroo mm-hmm. maam Yacine Diagne mi nga daan dégg ci ja ci ci ci Dakar mm-hmm. nga xam ni buñ doon jox jigéen ab mu taqdim ijaasa mm-hmm. ci tariqa bi dina ko am ci wàllu Seydi Haaj Malick maam Yacine mooy moo jur mooy yaayi papa Moustapha Moustapha Sène ba tax na wax dëgg yàlla maam baas noon ko ci nuyuwaale di yeesal sunu kóllëreeg Pape Malick ci moom mm-hmm. ndaxte bariwaana la nit ñu ànd sa sa soxna moo leen di tàqale mm-hmm. waaye moom biñ fe ñëwee fekk nen demee Pape Malick da koo gën a dëgëralaat mm-hmm. même keroog bi ma ko jale jee bi ma koy tàggu mi ngi may jox xaalis ma ne ko waaye ku jaale si mooy joxe jaxal mu ne ah benn la rek. da xam ne loolu. ak rafetal la. Mhm. Ah, jërëjëf. jërëjëf Hadj Malick jinge Djingué euh, mbokk yi premier numéro ci Chérif Dabakh ak mag ñi incha allah ñu ngi leen di digg daje ci beneen i numéro incha allahu rabbi ngeen àndoon ci ak seen xarit euh, Abdoul Aziz Thiam incha allah kon bu ko defee rek ñu ngi leen di gërëm. di leen ñaanal ba beneen yoon incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. tabaarkalla.